gi dinaa ñëw rek ci tuuti li nga xam ne actualité la ci réew mi kenn mënul wax te tuddoo ko muy imi immigration clandestine bi nga xam ne ñi ngi mbëkk ci gaal yi xale yi di dem seeni bakkan di ci des Sénégal di ci perte lu ñu bare doomu Sénégal yu bare bare bari di ci des maa ngi jaale bu baax a baax famille yi nga yi nga xam ne yàlla dogal na seen doom des ci te nekk fii ci Touba te bari lool parce que ñi ngi koy réclamer bët bu yàlla sàkk nga dégg dég bët bu yàlla sàkk nga dégg sarax bët bu yàlla sàkk nga dégg jooy boo laajee ñu ne dooma du xale yu demoon ci mbënn mi la loolu muy lu méttee méttee méttee ñoo ngi jaale ñëpp di ko ma di leen massawu di ànd ak ñoom métit bi di ànd ak ñoom naqar wi mais di ñaax li fi des ci xale yi ñu góor góorlu te jéem a toog ci réew mi fas yéene liggéey te xam ne ñoom tekki moom du damay génn samam réew door a tekki li tekki di baax baax tekkee ci sam réew moo ko dàq te mën na nekk xale yi nañu def seen bopp ci ne ñooy ëllëgi réew mi ñoo war a développer réew mi ñoo war a nekk léppi réew mi ñoo war a nekk opérateur économique réew mi ba di ci di di créer ay emploi nit boo joddoo am objectif ne man damay créer emploi maanaam yaakaar naa ne du wuti du wuti du immigré ji te ñoom dañoo war a nekk ci réew mi man mii di wax ak yéen dama bay toolab gerte am ñaar fukki junni ak ñett musuma génn réew mi bay employé cinq cent personne te musuma génn réew mi te junni yu mel ni man ak ñu ma man ñu ngi fi kon ñu xam ne teraanga mi ngi ci réew mi te nit day am objectif fii laa juddoo fii laa màggee fi laay tedde fi laay defare sama seewee ba kenn duma ma loolu mooy jom loolu mooy gone objectif boobu lay am mais damay génn rek dem même boo demee ci àll bi tedd maanaam échec nga parce que li nga man da koy prouver ci sam réew nit day prouver ci fi mu dëkk day prouver ci biir biiri bokkam day prouver ci ci nationalité bi nga xam ne fi la juddoo te liggéey am na fi liggéey am na fi ñàkk a xam liggéey ak nu ñuy liggéeyee loolu mooy li ëpp ci xale yi li leen dal da ngay gis koo xam ne day juddu ci gox nekk fa am système bu tuuti bu mu war a def rek effort bu tuuti bu mu war a def ñu orienté ko rek mu réussir parce que bari bëri nañu Sénégal xale yi bëri na ci ñu am volonté bari na ñu am volonté ñoo xam ne buñ leen orienté tuuti rek forme am tuuti formation rek war nañ mën a dem loolu dama koy xool man damay xool ci xale yi damay jël la la li ma lii preuve bi parce que nit lu mu dund dana ko xam man dama jël damay jël groupe bu manœuvre lu ma cent manœuvre nekk ci sama entreprise ma leen xool ba mu yàgg ma seppi ci ñetti nit mboolem tey jii ñu bari ay chef chantier ak ñoo xam ne conducteurs yi machine lañ ay manœuvre laa leen jëloon ci sama maa ngi juróom-ñeent ñoo xam ne ci ci université bii laa leen jële bi ñuy ñëw ci université bi ah, qualité de manœuvre lañ fi ñëwee nekk ci biir manœuvre yi tey jii ñooy conduire machine yi machine lourd yi ñii ngi yor ay ppm ñii ngi yor ay manetou ñii ngi yor ay bétonnière kuy wedd na dem fii laaj ko donc bi am salaire au moins cent cinquante mille francs par mois donc loolu nag am na fi liggéey am na fi actuellement moment bii ñu toll muy novembre décembre bi ñu dem ba babaa ngay dem mois de mars xale bu ci am courage képp maanaam yor quatre-vingt-dix mille francs mën nga balaa quatre mois yee jeex boo amee courage ci gerte gi rek mën ngaa am un million six cent un million sept cent quatre ak quatre-vingt-dix mille francs départ boo jëlee boo boo jëlee benn deux cent cinquante mille dem ci marché yii environnement bi fii ba Porokhane ay marché fii ba Porokhane ay marché fii ba Kaffrine ay marché fii ba Koungheul ay marché la dëkk bépp ay marché ba yàlla sàkk am na marché fii ne boo jëlee deux cent cinquante mil dem jënd ko une tonne gerte ci àll bi wala deux cent soixante quinze mille boo ñëwee Touba rek oto yi baana baana yaa nga fa taxaw nga dem jënd ko teg ci oto bi fay sept mille francs benn tonne nga fay sept mille francs ñëw taxaw gaar bu ndaw ñu tegal la vingt cinq francs trente francs muy trente mille quarante mille nga jaay ko génn 7000 transport ak sa añ ak cere du ëpp junni nga am 25000 fanaan yi bu subaa nga xëyaat dellu feneen mais loolu liggéey la loolu rek liggéey la. donc loolu loolu il te loolu bari na fi bu fekkee ni mënoo génn danga naa sama baay mag la wala damay def lii wala damay def laa nga jënd benn machine u segal boo xam ne mën ngaa nal ñaari barigoy gerte wala ñetti barigoy gerte par jour nga dem ci gaar bu ndaw jënd ñaari barigo ci 60 000 francs wala mille francs dem bo bojj ko wa segal ko mu jox la 62 pour cent ci huile da lay jox ñetti bi bidon huile nga dem jaay ko benn 15000 muy mille nga jaay sa rakkal lu mu néew néew da nga mille 15000 francs marge bénéfice 15000 donc nga dëkk ci boo ci dëkkee 4 mois danga am départ il faut xale yi def seen bopp ci ne damaa bëgg a toog liggéey fii donc loolu bu ngeen ko defee loolu rek. xale bu am bu bu am loolu dem ci rek wala bu ngeen ko amul sax ñetti xale xanaa lu nit bon bon boo liggéeyee dara war ngaa am benn cent mille francs yéen ñett bu ngeen dajee rek jox kenn sax mu dem jënd ñëw jaay bu ëllëgee keneen ñëw bu ëllëgee keneen ñëw balaa campagne day jeex rek lu mu néew ne ngeen am ci départ mën a defi leneen mën a defi leneen